lu ëpp ñetti téeméeri nit jot nañu leen consulter te fayuñu dara bokk na ci téeméeri jigéen yoo xam ne jot nañu consultation soxol cancer de l'utérus ak yeneen téeméer yoo xam ne jot nañu consultation ñeel diabète. cancer du col de l'utérus bokk moom mooy feebar bi nga xam ne moom mooy ëpp mooy ëpp lu muy faat ci jigéen ñi fi mu toll nii fii si Sénégal donc def dépistage bi am na am na solo. mu di initiative boo xam ne jigéen yu nekk ci inspection d'académie bu Pikine Guédiawaye ñoo ko amal. lii nag dafa bokk ci suñu plan d'action parce que semaine bii passée jóge nañu ci randonnée pédestre à Kër Massar tey nag euh, ñu ñu def nag journée de consultation gratuite bi. nit ñi nag jot nañu déplacé wu bu baax a baax jigéen ñi profité ci ngir sàkku ci kilifa yi ñu yokkal leen bërëb fajukaay yi ci jàmm gën si Cap mbaaw. jamono ji ñu toll soxla nañ autorité yi taxawuñu. pour ay structure de santé surtout ñun jigéen ndax jigéen soxla na santé soxla nañ vraiment ay centre de santé yoo xamante ne dina xaw a sakkan. ci lu soxol suivi bi organisatrice yi di ñu xamal ni rek cas critique yi moom daañu leen accompagner ci prise en charge bi.